képp koo xam daa nga sonne ci sama bis bi bu ca àggaatee da nga yëg xéewal gu dollu ko ci yow goo xam ne màggat gi ko may Serigne Saliou Mbacké dégg ngeen ñëpp wax ba tey mu wax ne Serigne Touba nee na ñaar buñ dendee kii ko fonk kii ko ñàkk fonk waxtu ne ngeen dis ko fonk lu muy tiima ka ca kon bisu bisu Serigne Touba ci waay defar sa boppam ko defal ba noppi ndax Serigne Saliou daana wax ne màggal de day ndur lu jafee organiser waaye lu yomb organiser la ndax taalibe bu ne dana fexe ba këram jag kon màggal gi taalibe Sëriñ Tuubaa xaaruñ ci kenn mosuñ cee xaar kenn te duñ ci xaar kenn waxuma ñu ñii sax waaye taalibe ba gën a ñàkk gën néew doole sax dana fexe ba ak màggaram jag am na ñoo xam ne buñ màggalee ci suba sax lañ ko tàmbali waajal ba déwén moo tax xat-xatu jamono du ko yëg du yëg naqari jamono loolu Sëriñ Tuubaa ko faggu wali sewaay yettaxi day xu samaan li ci li ci gën a jox firnde rek mooy bi fi mbas mi amee ñëpp jaaxle tiit waaye màggal googu bokk na ci màggal yi daq ci màggal yi kon loolu moom du man du keneen du du benn taalibe lu suñ Tuubaa liggéey lu suñ borom ba mu fay ko ko ginnaaw mi tam ñu war see jàngat jàngat bu réy ndax ren la téeméeri at ci bi Sëriñ Tuubaa ñibbisee te loolu dafa am ndigal ñaari ndigal yoo xam ne da ko fee bàyyi ci ay waxtaanam benn bi mooy bi muy woote jumaay Tuubaa dafa waxoon ne bi mu wootee ba ñëpp daje dafa wax ne maa ngi leen di digal ndigal loo xam ne fu waay jëm na ko fa yóbbaale mooy lépp lu ngeen bëggate wala lépp lu ngeen sombate rawat ne lu mel ne néegub yàlla bii ni ngeen ci góor góorlu seen kem kattan te lu ngeen ci mënut ngeen dem laxasaay wuuti ko ci anam gu lew te fu ci seen te fu ci seen kattan yem ngeen toog xaar fa sayaj'alullaahu ba'da usrin yusran tariki nag maa ngi leen maa ngi leen di wattandikuloo lépp ndimbal loo ne bu leen fajalee seen aajo it dañ leen xañ seen ngor xañ leen soñ seen jom tilmal seen diine daani yett yi de képp kum ne ci yow war ngaa fexe ba sàmm ko képp kum néewu ci yow de war ngaa fexe ba wuti ko nee la jiitu ca la koy maye nag mooy fexe ba mënal sa bopp la jiitu ca la koy xañe mooy ñàkk a mënal sa ndax ku la mënal sañal la te bokkee ko yàlla na lay war a yàlla na la la war a sañal kon loolu Sëriñ Tuubaa ko santaane woon njabootam gi topp ko la ci mujj mooy xutbatu am sa sin mooy gaaw bi nga xam ne ci lay mujj gis sëriñ mujj gis sëriñ bi muy gaaw ba sëriñ bi wootee ba ñëpp daje sëñ Malick Jaay mu woote woon bi sëñ bi sëlmee takkusaan lam njëkkalaat dafa wax ne tey ñaata fan la ci weeru ñu ne ko tey la fukki fan ak juróom benn mu ne kon na ngeen wax ak njaboot gi ñu dal te jekki fii ba gàmmu gi kon suñ bi tàggoo nag nit ñi wax leen ne itam yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne ñett ci tax a mucc yée yée ci tax mucc noppi jekke jaamu yàlla nangoo liggéey dooy loola nga am na ngeen gàttal jéego yi ne fii ba gàmmu gi digle ci digle yu bari xam naa jotaay bi day gudd ba nga xamee ne waxtaan naa nit ñi laata timis mu duggaat ci biir sëñ bi waxtu yépp moo ko daa jiite ci jàkk ji ba mu sëlmalee itam ñu baat fenêtre bi mu tàmbalee di waxaat nit ñi wax sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ne ko jàngal suuratul baqara sëñ Mat Lamin sëñ Mat Lamin Jóob Dagana tàmbalee alif laam miim zaalika al-kitaab laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin allaziina yu'minuuna bil-ghaybi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun wala siin yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wal aaxirati hum yuuqinuun mu ne ko looloo melo melaw aw julit daa mel na ndab loo xam ne dañ ko def ba mu njëkk te bënnut loo ci def rek mu des ca mu ne ko wëyal mu ne inna lazina kafaru sawaa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minuun xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim wa lahum azabun azim mu ne ko mooy melu yéefar daa mel ne ndab waaye dafa bënn loo ci defee def sotti ku suuf mu ne ko mu ne ko jàllal mu ne ko wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axir wa ma hum bi muminin yuxaadicuuna allaha wa lasina amanu wa ma yuxaadicuuna illa anfusahum wa ma yashcuruun fi qulubihim maradun fasaadahum allahu maradan wa lahum azabun alim bima kaanu yukasibuun mu ne ko mooy nafiq moom moo tax ñu bind moo tax bis biñ ci taxaw mu ne ko wala seen yow maa unsila ilayka mu ne ko mooy alxuraan bu ma unsila min xablika mooy téere yi ko jëkk mu ne ko na ngeen fexe nag ba mot wattandi ko taasub mooy farfarloo li dal li daal diggante yahood yi ak nasaraan yi na ngeen ba yéen bu leen ci bokk waxaalitil yahood laysati nasara ala sayin waxaaliti nasara lay siti liyahudu ala cheyin mooy mooy yahuud yi dañ ne nasaraan yi nekkuñ ci dara nasaraan yi ne yahuud yi nekkuñ ci dara mun leen yéen na ngeen fexe ba loolu bu leen dal loola nag moo war a murid yi képp ku baax rek nongul nañ la nongul nañ Cheikh Abdoul Khadir Jeylaane nongul Cheikh Ahmad Tidiane mën naa fa wëlbati ko nongul Sëñ Tuubaa kon loolu Sëñ Tuubaa mooy yoon bi ñu ko war a defee yoon woowee nag boobee nag la cëli mujj gis sëriñ bi ba yàlla def gisatuñ ko ci saahira ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ci mat ga ak yitte ju kawe ja ak dogg gi ak mate gi li ko sëriñ bi bàyyee mu fexe ba mu ñëw Tuubaa kon ñoom ñi ko fi wutu ren la ci téeméeri at ci démb bi ñu ko indee ak léegi liñ fi liñ fi def ginnaaw bi li taxaw lépp bu weesoo jumaa njaarim ginnaaw bu sëñ Tuubaa ñibbisee lañ ko taxawal kon sëñ Tuubaa lam waxoon ne suñ boom teg na ci sama loxo at def wal jëlbu fii ba ginnaaw bu ma bindee min yooyu fii ba ñeenti téeméer wane na kon yoonu kenn kenn duñu ci dara lépp sëñ Tuubaa ko defal boppam loolu nag ku ko xam da nga noppalu doo doo jàq doo jaaxle da nga xam ne lu waxtu wa agsiwut rek waaye lu waxtu agsi rek dana yóbbu ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha ginaaw bu mu indee suñ indee suñ bi Touba boo Touba ci fukki buntu kër matag ko ndax sëñ bi bëgg dalaa wax ne damaa bëgg ba bala faa mbooloo maa bari ma jiitu fa ba duñ ba duñ mën yàq dëkk bi boo Touba matagul fukki fukki kër tey wax nañ ne Touba mooy dëkki bi ëpp ay nit ci Sénégal mooy commune bi gën a rëy ci Sénégal di département bi gën a rëy ci Sénégal kon Sëñ Tuubaa ak ñaanam nangu na Cheikh Mouhamadou Moustapha ñëw ànd ak taxawaay bu bët sëkk ci lam njëkk def mooy raay bi xam ngeen gàllankoor yi ca yi ca doon xew ndax tubaab yi dañoo wax ne nañ ko ko may taxañ ko ko nañ ko may autorisation bi ndax bëgguñ ni ni suñ diggee sëñ bi dëgër woon continuer di dëgër ndax ñi ngi tàmbalee maslaa waaye nag nañ ko ci tegal condition yoo xam ne du ko attan waaye moom itam mu wóor ko ne la Cheikh Ibrahima Faty waxoon rek néew ma xaw néew ma xaw ma sang rek waaye xamu leen Sëñ Tuubaa yéen itam ndax Sëñ Tuubaa du santaani mukk lu am du ma sant def mu ànd caaku dogo junni junni nit ak juróomi téeméer la jël xam ngeen nam demee la ñëpp def Cheikh na lu ëpp téeméer nit ak mboolem kilifa yoon yëpp ñu gas raay bi diir bañ leen joxoon ak conditions yi leen joxoon yëpp ñu matal ko. liggéey ko ci lu gën a néew fuuf diir ba ba contrat bi amoon te contrat bi bokkoon na ca mooy bu ñu àggee ca date ba te àggut da ngeen di perte lépp mu góorgóorlu pësteef ak dogu jamo boobu yoonu boobu yombugut ndax doole yoonu wépp mbay la woon mu mu mu indi toole àllarba yi gor ay tool yaat daar ndax yi fu ne ca la woon ak njabootu Sëriñ Tuubaa ñoom ba tàmbali jumaa ji ba fondation ba mu yëkkati ko mu door fee bàyyi ko ci jamono ju naqari guerre bi déclaré 14 18 xam ngeen ya ci xew diggam ak tëlëri day lu gudd waaye doggagum ci amoon ak ndam la ko ci Sëriñ defal ndax daa wax ne bu ma dëree sama ta sama benn tànk rek te kama daa far far ma li ma bëgg dinaa ko rawat na bu ma tegee sama ñaar tànk ku ko bëgg a daaneel te kama daa far far ma ba ba amee ca tribunal ba ca kaw la mu àndoon nag maam Cheikh Anta ak sëñ Modou Moussa Fall ak sëñ Massamba ba mu duggee booba tribunal xam ngeen kenn du fa dugalaa dugaale ba ba mu duggee sum summi gi sëñ Modou Moussa Fall daa yuuxu waaye ba mu agsee tubaab bi na ko leen rek laa bëgg a xam danga fay wala doo fay sëñ Maodo Moussa ne ko du ma fay nax tooñu ma bu fekkee nguuru France dama bëgg a daan nag na wax waxante ñoom kàddu yu diis xam ngeen nam deme ba mu fa jógee am ko ne ko tubaab bi ne ko daanaka da ko da ko da ko xupp ko ne ko boo deful li ma bëgg ya danaa dal sa kaw ba mu génnee nit ne ko ah, tubaab bi de ni mu waxee yow xaw ma dégg nga ko baaxam déet ndax xam nga fi ñu jaar ak sëñ bi di ump la ca roog tontoo lii ñu teg ci ay fan de guerre mondiale eh, ñu déclaré guerre mondiale bi tëlëri ñu faat ko fetal ko mu dee bu jeex kon mooy mbirum Sëñ Tuubaa li koy xeexal dafa takkook moom Cheikh Mahoudou Fadi Mbacké ñëw fa Cheikh Mahoudou Moustapha tàmbale woon mooyee fa jëm ci kaw def yitteem jëpp mooy jumaa yi boobu li la wax yoon yoon yu neexagut lam njëkkee def mooy gor ay tool ngir mën àggalu jumaa ji ànd koog seex seeg taalibe Sëriñ Tuubaa yi Tuubaa boo ko ca la bokk sonn ci lool booba àgg na ci fii ñu toll nawet bu agsee liggéey jumaa ji day taxaw ndax nit ñi amatuñ amatuñ luñ ci joxe noonu lay liggéey jumaa ji waaye seen jom ak seen pësteef néegu tabax sax nungu ko am néegu ñax ci dëkk ba jumaa ji àgg loo ma ne bala kenn tabax na liggéey suñ tubaab bi ubbi dëkk bi ci yoon yu màggee nag tasaaroo ci bitti ba àgg Côte d'Ivoire ubbi yoon wi woote màggal gi nga xam ne Serigne Touba da ko woote woon ci njaareem ne boo agsee na ko ci ñëpp sant la yàlla ginnaaw mi tam Cheikh Maodo Moussa ko na ko sëñ bi defoon bu Cheikh Maodo Fadi Mbacke ci la ko woote fii ci Touba mu tolloog nawaytu shukruhu la daa daari salaam wa indi Touba bi jismin wa xilaam nawaytu shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa hinda daaritil minan kon ñoom ci loolu lañ ne ci la nekk ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñëw Cheikh Modou Fadil xam ngeen ne moo fi indi tëli yeeg courant bi ak forage yëpp ci xilaafam la ñëwee ci la dëkk bi door a doon ab dëkk da ko jëkk wilaas bu tuuti la woon ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëwee nag nosaat yoon wi indi daayira Serigne Touba yi indi kër Serigne Touba yi boole ci raxas dëkk bi ba dëkk bi mel nii mu mel. mooy lii Cheikh Mouhamadou Mountakha dénk jabaru Cheikh Ibra gi tey ndax Serigne Touba dafa taalif xasida ak Matlabul Fawzayni ba ko ba ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di tere itam lu xóot la loo xam ne neexatu wax ci rajo waaye lu mu déggoo ak Serigne la ne woon lu ma daal ci village ci li Serigne Touba bëgg amut sama bakkan laa ci dëkk mooy lii Serigne bi di sàmbura jabaru Cheikh Ibra gi tey muy suñu am di ñu ngi ko ci ñaanal bu baax mu yàgg koo taxawee sëriñ bi nga ko ci sant ndax mën loo foo sëy ni sëriñ Tuubaa da koo taalif wax ni wax ni dëkk ni bëgg dëkk bi mel ni kon loolu rek lañ jug ñoom di ko sàmm dolliwu ca dara teere sëñ bi daal waxoon yooye képp la Cheikh Mamadou Mountakha di terewaat lañ ci yeesal rek mooy wàllu politik ak wàllu football bi ndax loolu itam boobu melu gunni ci jamono moo rax sëriñ bi wax ne nam ko tere woon démb mi ngi koy yeesalaat ndax xam ngeen yàqul dara firnde ji mooy bu ñu àggee ci élection yi nit ñëpp kenn ku ci ne jug nga wata ji seet kala neex nga wateel ko ca na nga ko bëggee te yàqul dara waaye nag politique bi li mu doon yàq ci dëkk bi nag mbiru àdduna jëru ko ndax day jaxase xol yi te politique jërul loolu leen boole li ñu boole mooy Sëriñ Tuubaa li ci des lu jaar di jàll la rek li ñu boole mooy Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ji ji ñu boole nag bu kenn ku ne dee xool moroom ca ca sa jëmm dana danañ xam ne ñaare politiciens yu juyoo jëru jëru di mere kenn wala ku gàttum xel koy def bu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëwee dajale yoon wi dajale seex si dajale kër Sëñ Tuubaa yi nosaat yoon wi ba la mu ne yoon wi de danaa ko nos ba teg ko ci yoon wax néew ma du fa jóge di waaye du gaaw kon ñoom kenn ku ci ne lay sa mission ndax buñ duggee ci di ko wax jataay ko maye bi mu fi bàyyi ko Cheikh Abdoul Khadim Mbacké ñëw wuutu ko ca liggéey ba ñoom ñaar seen xilaaf dafa ànd si si si bi ñu ko yëgee ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bàyyi ko na fi dafa wax ne maag sëñ bi de gopp ak ëllëg lañu kon ñoom ñaar seen liggéey dafa ànd sëñ laa daal daana wax ne ba ñu Sëñ Tuubaa di boole daa dàq seytaane boobu doo ñëw boole. mu bàyyi ko fi sëriñ Serigne Saliou Mbacké ñëw bi mu dikkee itam fañ fam fekkoon liggéey bi mu yokk ko gis ngeen li mu def ci jumaa ji kër Serigne Touba yu bari ci dëkk bi yokkaat dëkk bi itam ba dëkk bi bu benn mu yokk ba mat ñett lotissement yëpp te nungur ko ko jaay daa ko topp di ko yokk di ko saytu ak titre bi nga xam ne yàlla def na ci biir ak xilaafam la ko suñu borom dogale ak liggéey yu bari mooy lu mel ne te xel koom bi mu fi bàyyi ko man na fukki daara ak juróom yu bokk te yeneen daara yi ci des bàyyi fi fukki milliards ak juróom benn def ko addee Sëriñ Tuubaa bi mu fi bàyyi ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw woye liggéey bi moom itam bokk na ci li ci jëkk ndax Sëriñ Saaliwu assainissement bi njëkk a def ci dëkk bi tolloon ji 600 millions moo ko def ay 93 94 moo tàmbale woon ci station Darou Khoudoss tàmbalee fii ci wetu ginnaaw kër Sëriñ Tuubaa gi dem ba kër ñag mooy li fa jëkk am Sëriñ Saliou ko defoon ba yàlla def Cheikh Mouhamadou Lamine ba Mbacké ñëw bokk na ci liggéey bi mu njëkk a def yàlla def na man mi maa ko taxaw boobu société bu ñuy wax EFAS ñoo ko defar mooy assainissement li xam ne bu dul kër Sëriñ Tuubaa ñëpp xam nañ ni mu daa ak buntu kër doom Sëriñ Tuubaa yëpp ak buntu armeel loolu bokk na ci liggéey yi fi njëkk def boole ci it tëli yi nga xam ne jëm na ci quartier yi ak kër Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne naaloon na ko mooy géemu joxoon na Sëriñ Seex Jëmbu ci héliport fala mujj ànd ak moom sax ginnaaw ndajam mañ doon def njaarim biñ tegee xeer laata ñu bi liggéey bi la fi bàyyi ko kon moom itam la ko waroon ci liggéey lépp def na ko Masaalikul Jinaan itam yàlla def na suuf si biñ koy joxe ci xilaafam la bañ bañ taxeeru yàlla def mu bàyyi ko fi ginnaaw bi ak Cheikh Sidi Mokhtar yow bi mu itam mu li ko gën a ñor ci liggéey bi la ci jiitu mooy Masaalikul Jinaan mu nekkoon somb wu rëy wu yàgg waaye yàlla def mu def ci jiite def ci jëf jom 2012 lañ ko tàmbali bi mu fi jógee daanaka la ci des ma sax ay ñetti milliards ñeent kon moom lam ci des sax ëpp na daanaka fàtte na lim waaye bari na daana fekk na soorool yeeg lépp ci décoration yi sa àgg liggéey ci liggéeyal Sëriñ ci jumaa ji ñaari soorool defaraat biir jumaa ji lu bari ci karo yi ñu soppi ko ak yeneen liggéey yu bari bokk na ci it kër Sëñ Tuubaa gii ci Daaru Manaan nga xam ne sëñ Saliou moo ko naaloon dénkoon ko waa daayira ma doo foo ñu tàmbaloon fa bâtiment mu àggale fa def fa ñetti bâtiment yeneen bâtiment yooyu itam man mii la joxoon ndigal benn bay waa kër sëñ mënu ba ñoo ko doon defar sëñ Ibra Xujje yàlla na ko yàlla guddal aw fanam mu defar ko na ko sëriñ bëgg woon ba jelse di waa kër sëñ ma ñoo ko defar ci njiital siñ Moussa ak ak sëñ Cheikh mu sëñ Mahooda mi doon seen jëwriñ ñoo itam ñu liggéey ko na ko sëriñ bi bëggee woon ba cee di mu jox ko siñ siid naar jenn moom itam mu defar ko mooy mbaar may nga xam ne moo fa nekk ba liggéey bi àgg loolu itam bokk na ci ab liggéeyam ba suñ borom def te loolu des tay yu bari yoo xam ne dama ko du teewlu ab liggéeyam mat Cheikh du mun taxaa ñëw bi mu dikkee itam ay naal yum fi fekk mooy Masaalikul Jinaan des na jumaay Tuubaa ji àggagut waaye mu nañ sombu ñaar yëpp waaye université bi mooy sama yitte kon nañ boolu ñett yëpp ma mu ko ci lool na xam ni diise waaye mu ne ma ñun de nañ xam ne suñ compte mooy Sëñ Tuubaa luñ somb ta luñ song ta am ci dogu rek dana àgg xam ngeen ne fi mu toll nii liggéey ba sori na lool université bu ëpp 30 milliards te la ci la ci ëpp àgg na xam ngeen ne boole kook àggale Massalikul Jinaan àggale jumaay Tuubaa ji loolu ay sumb yu rëy la kon ñu ngi ko ñaanal moom itam mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba motti naal yi nga xam ne am na ko ndax am na ay naal yu rëy ci dëkk bi yoo xam ne bu àggee rek ndax dégg ngeen ci làmb ñam bu wax ne bu dul woon ak université bi mooy ndox mi ñëw ci biir dëkk bi kon mooy itteem xam naa kon incha allah balaa diir bu gàtt yaakaar naa loolu daa nekk yitte yitte joo xam ne ndax sëriñ bi yërëm na lool taalibe yi yërëm na leen ndax xam na dëkk bi ñaare ndox yi ni mu leen sonale mooy ndoxum naan bi ak ndoxum assainissement bi te koy ànd ak ñoom ndax xam ngeen ne kenn ku ci ne daanaka kenn mucc kenn muccatu ci mën mii sax bu ma xëyee sama kër di ñëw fii damay teggee tegg ba sonn doo am foo jaar waaye li muy metti metti metti am na ñoo tane ndax ki këram ne ci biir ndox mi moom kenn mënu ko wax lu mu dégg te na bari nañ ñu ay kër yoo xam ne génn nañ bari na ñu génn seeni kër loola nag lu metti la la ko waral la ci ëpp kon mooy dañoo dëkk jiitu assainissement bi ndax Touba bi suñ Touba ñibbisee Touba boo mi ngi toll ci fukki kër assainissement bi ñu fi njëkk a def boo Touba am na téeméeri at bi fi suñ Saliou njëkk def ci xaalisu boppam boo am na téeméeri kon assainissement ni ko dëkk bi jiitoo dafa ëpp boo xam ngeen dëkk bi wees na corniche bi dooy loola képp fi newoon ba ginnaaw suñ Saliou leneen li fi amaat lépp nag yàlla def na man mii ci sama xalaat la jóge xaw naa ci xam lu bari ndax lañ fi njëkk a def président Abdoulaye lu moo ko fi def ma tàmbale woon fii ci buntu kër Sëriñ waa gi dem ba ca post contrôle daal di continuer jaar kër ñeeg jàll mooy assainissement bi mu fi njëkkee defaat bu bu weesoo li alaj ba def mooy jumaa ji kon lu ci ne xam naa fa mu jaar 2012 bi nga xam ne président Macky Sall ñëw na it ku fàttali ko at moom indondation bu metti moo fi amoon mu ci dëkk bi booba Sëñ Sidi Moxtaar yëkkati un milliard ngir bëgg woo taalibe Sëñ Tuubaa yi ñu defar ko far moom mu jël ci engagement ci la tàmbali assainissement ba njëkk def ba 2019 2019 at mooma fekk ñaari at yoo ko jëkk yëpp fàttali naa ba taay ne leen màggal gi de buñ ko waajalut fekk at yu néew dana dugg ci biir nawet loolu nag mooy 2019 ci lañ ci defaat liñ li fi ñu toll loolu nag liggéey bi dafa àggagut moo tax mu xaw a metti ci nit ñi ren ndax yàlla def bi mu fi jógee nguur gu bees gii fi ne ku xam nguur waxoon naa leen ni ren sëñ Sadio dafa wax ne nguur gu bu amagul ñeent fu guddi kenn du ko teg soxla ñeent fu guddi weesu ne ma dañ leen yërëm ba wala dañ leen layal man layaluma kenn xalaatuma ko sax sëñuma ko ndax liggéey Sëñ Tuubaa bi suñ bakkan lañ ci rek suñ pësteef lañ ci rek suñ dégg Sëñ Tuubaa luñ ci seeral kenn lu mu defut ndax waaye boo xamee danga xam ne diirum ñeenti weer ku ci yaakaare mën naa tàggook ndox mi nit mënti nekk ndax liggéey bi àggu ko ña ngi ca liggéey góor góorgóorlu nañ nag def ci jéego waaye dafa des beneen jafe-jafe bi ci am nag xañ ne comme ñoom bi ñu door agsi euh, xamaguñu woon liggéey bi ni mu demee ndax daaw ba seeb kër ñang bi dañ faa déggoon pompe boo xam ne six mille mètres cubes la daa yóbbu ndax xam ngeen ndox mi jóge ci dëkk yëpp fa la jaar moo tax ndox mi dawu fa taxaw leen li dem kër kàbbu la ca des dem pof di fi ñu wax ngelaw itam pompe dafa ne woon di yóbbu kër kàbbu yàlla def nag bi nawet bi duggee pompe ba ma ko toll ci deux mille huit cent kon dafa manqué lu bari bi fi ministère bi ñëwee leeral naa ko bi mu ko xamee it bi mu fi jugee wax na ne ñi ngi monte pompe pompe yi dafa noppeegut li fi noppeegut nag ndax taw bi da koo téye woon ba tax mënta jàll loolaa waral bu ngeen seetloo ren fu mu tawee rek mu metti ndax li ko waral mooy. bu ñu ubbee bu ñu ubbee bu ñu tëjut bu ñu tëjut machine yi boobaa kër ñang ci boppam ndox ma day sotti ko seen kaw moo tax ñoom itam dañuy bàyyi machine yi muy dem ndànk-ndànk ba këru machine yi ba noppi waaye kon nag comme ñoom dañuy door a toog moo tax nit buy door a toog doo ko mel na ku koy person personne jox loolu du suñ baax ndax Sëñ Tuubaa dañoo tere dañoo tere jàmbat ku def lu baax ñu sant la waaye ku defut la nga war a def itam murid moom xaaruju kenn ci dara kon nag ñoom ñi nga xam ne seen worteef la te dañuy door a toog xam na xam nañ ne ren jàmp na kon liñ ci man rek mooy fexe ba génnee ndox mi ci biir kër yi jàppale ci nit ñi ndoxum naan mi it alhamdulilah rabbil alamin fi ñu toll bu fekkee forage yi paan bari na yéegagum xëy na benn lay doon wala ñaar ñu def ci yitte ba benn forage bañ paan oto ndox yi itam nañ ko defee woon daa oto sàpp pompier yëpp ñu fexe ba dolli ko bareen jaal te màggal gi jàllee rek ñu fexe ba déwén ñu def ci yitte ba ndox mi bañ a manqué at waaye comme atum ren la loolu moom da ci am loo xam ne nit yi day xam lu yoon waaye nañ ci gën a dolli yitte ndax nit ku ku ne ci biirum ndox ay bagaasam di yàqu ab dundam di yàqu kooku taxaw ko métti na am na sax ñuy wax naan. nañ jël nit ñi dugal leen ci kër Sëriñ Tuubaa waaye kër Sëriñ Tuubaa dafa bëriwut kër yii kër Sëriñ Tuubaa buñ fa dugaloon nit sax fi ne mënoo ko génne fii ak màggal ndax màggal gaa ci biir nawet bi ba ca des mooy ñun ñii sax gan ñi ñi am kër day fees ba li ñuy luyee ci ay kër dana mat fukki million kon ku amagul néeg yu doy ngir gan xam nga kër yi du luñ mën a ubbi na nit ñi duñ ko xam li ñuy wax wala. dëkk bi dafa am nu muy doxee dëkk bi dëkku kàddu la dëkku baat la li fi indi nit ñi ak taalibe la ak taalibe lañ àndeek ak sëñ bi waaye du sañ-sañu lu la neex wax wala noo ko gisee nga wax ko loolu moom nañ xam ne yërmandee sëñ bi moo leen may li leen am li am looloo leen ko may bu tolloo yërmandee sëñ bi kat la sëñ li waxoon ku koy bañ kat ci dëkk bi nga koy bañ waaye boo demee Mbàkke gii rek mu teg ci sa kaw kon. daa wax yaar dara dara amu solo xam loo amut ak am loo xamut xam loo amut ak am loo xamut kon nag ñun li ñuy bëgg dal mooy li ci àdduna te mooy ku ñëpp ñette ñëwu sa bopp Touba dëkkub yërmande la Serigne Touba ko ñaanu borom waxe tam ne ku fi sam xel indiwutit saw xel dina la fi indi kon loolu nit ñi fi dëkk am tawféex yi dëkk ak Serigne bi la Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon rek nañ doyloo Sëñ Tuubaa te xam ne Sëñ Tuubaa fàggul nañu lépp te te ku ci ne ci dog yu itam na la wóor ne Sëñ Tuubaa daan la fajal sa aju saahir baatin ndax firnde ji kat mooy Tuubaa mosuñoo toog di xaar dara ci nguuru ndax raay bi firnde la ci Sëñ Saliou ba mu fi njëkk def assainissement ci dëkk bi ba fi njëkk def assainissement booba alali boppam la ko defee. tubaa képp ngay ngay dugg ci dëkk gis fa ay tëli ñun la ay daayira ko def nga gis fa ay poste de santé ñun la ay daayira ab def nga gis fa fo hôpital ñun la ab daayira ko gis nga nga gis fa forage ñun la ab taalibe ko kon loolu ñoom xaaruñ kenn xaaruñ ndimbalul kenn lu leen ci waaye di fekkee dañ leen cee fekke ba ci màggal gii leeral gi day baax ndax day dimbali nit ñi ndax man ma sax di weddente ala tontonte du sama jikko gën a du ma ko defit bu dee lu jëm ci sama jëm moom damay bàyyi rek addunay atte ak ak taarix muy atte waaye weddi moom um solo ndax la ci Sëñ Saaliw waxoon rek Sëñ Abdou Lahad Sëñ Saaliw daa waxoon ne ko boo buñ la waxaatee nga weddi mënoo ci dëkk te boo boo weddee lii bàyyi lii kon la nga weddoo yaa ko saxal Sëñ Abdou Lahad daa waxoon ne liñ lay tuumaal moom dee ko weddi ci say jëf waaye bu ko weddi ci say wax dee ko weddi ci say jëf waaye bu ko weddi ci say wax ndax nee na mënoo luñ la tuumaal la nga weddi ko wala danañ la tuumaal ba tuumaal la loo xam ne sax doo xam ne tuumaal nañ la ko waaye nag bu dee loo xam ne nag luy dimbale taalib yi ngir ñu gën a xam loolu day mel ne farata la ndax at yi weesu nit ñi doon wax nañ ko maa ngi fàttali ko 2012. màggalu Touba agsi du ma ko fàtte maa ngi jógee kër si Touba gi di dem Daaru Manam nit woo nit woo ma ne ma damaa dégg ñu dañ fi andi ambulance bu xaalis da ngay seet wax jooju loolu kenn xamul lu ab xanaa xaalis ku ko doo ko def ci ambulance ambulance la bu nit ñëw boo yi dafa jub si nit ñi nit ñi rek xam naa ko ko wax sax waaye du ko tudd wax ko de kooku tasaare ko ci rajo yi te nit ñi luñ dégg gëm ko ñu xool sax lu yenu maanaam lu yenul maanaam lu ne danga ko dégg waaye fii nañ xam ne la Sëñ Tuubaa waxoon la Sëñ Tuubaa waxoon ci diggam ak tubaab bi rek dafa waxoon ne sama digg tubaab yi kenn doyuma ci moom ndax ku dul man mën nañ la xupp wala ñu xëpp la man ak mënisuma xupp mënisuma xëpp képp ku fi nekkal Sëñ Tuubaa ku ne nit ñi dañ dul xalaat waaye sëñ Muntaxa wala ña ko jëkk lu leen nit adduna mën a defal lu tax lu leen taalibe Sëñ Tuubaa defalut lu leen nit nitu nguur jox ci at balaa ma ñaar fan ab taalibe jox leen ko te duñ ko jëfandikoo sax am naa ci lu ma kenn koo xam ne lañ la jox yaa ngi koy jëfandikoo dañuy suturaal rek màggalu Tuubaa gi liñ ci ñàkk kenn xamul nu mu toll. ñaari nguur yi nga xam ne sama kanam la di moom te xam naa ne jàpp naa ne ñoo tane ñi leen njëkk li ñuy def ci màggal gi buñ ci génnee lañ leen di ganalee du ko ko mat te nit ñi xamuñ ko waaye ñun Sëñ Tuubaa tax ñuy def ku fi ñëw teraange Sëñ Tuubaa ji lañ lay jox xamuñ leneen te li ma la wax yomb naa yomb naa yomb naa vérifier ñaa ndax ñi ko doon def ñëpp ngi dund kenn faatuwu ci li ñuy joxe ci màggal gi muy jëm ci ñun ñi moo ëpp li leen de ganeele ko ëpp loolu daa martal leen ndax day gindi nit ñi mu dimbali leen ñoo xam ne màggal gi taalibe suñu tuwaay ñoo koy def kon nag ñi ngi sant taalibe yëpp bàyyiwuñ kenn di ko tàmbalee ci buñ tuddee njabootu seex tudd nañ bokk taalibe yëpp tudd nañ seex suñu tuwaay yëpp waaye di sant ñi nga xam ne seen taxawaay dafa fis ci màggalu Tuubaa bi tàmbalee ko ci commune Touba Mosquée di Sëriñ Abdou Lahad Ka di ko sant ci taxawaayam ci màggal gi ndax kilifa moom boole woon moom waaye lépp lu ko war ci màggal gi ma ngi koy def ñu ngi koy ñaanal yàlla gën koo kattanal ci loolu ba nii ñu ko ànde ñu yàgg koo ànde ci barke Sëriñ Touba di gërëm waa daaira Hisbu Tarxiya tudd na xam ngeen ni ñoom leen Cheikh mu Mountakha di wax nee na ñooy soldaari yoon wi noonu leen suñ muntaxaa di wax duñ noppalu guddeeg bëccëg seen taxawaay rafet na bu baax ñi gërëm itam waa daayira muqaddamatu xidma ndax xam ngeen ne jumaa ji sàppe yeeg li ci ajoog xorumi li ko wër lépp ju ngi koy taxaw amuñ guddi amuñ bëccëg seen yitte jëpp ñu ngi koy jëmee ci liggéey Sëriñ Tuubaa ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm waa daayira Rawdu Rayaahiin lim nañ mboolem taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir commission bi di gërëm itam waa daayira Touba ci kanam xam ngeen ne bu màggee gi desee weer yi ñoom itam liñ man lépp ñu ngi koy def ci defaraat yoon yi ak defaraat barab yàqu yi xam naa nag du ñàkk ñu ma fàtte xam naa ñu fàttali ma ko di gërëm ñi nga xam ne ñooy journaliste yi nga xam ne ñëw nañ fi ngir jàllale bis bi ndax xam naa li ci am solo rek mooy lii moom liggéey Sëriñ Tuubaa la ku fi ñëw it kuñ tudd kuñ tuddut amul solo bala maa jeexal nag ma sant al lajnatu tanzimiya mooy kuréel gi saytu màggal gi eh, leen beral seen cant ci njiital sëriñ Ousmane pëstéefam ak dogom ak taxawaayam te li li ci ëpp solo mooy li muy def lépp jëm suñu Tuubaa tax biig rek baa ngi koy wax nit ma ne ko bu ma ne ma bu nekk fii am jàmm pëstéefam ak taxawaay ak dogoom a tax ak mboolem ñu ko seqal nag kuréel gépp nag mboole mboolem ñi jiite commission ku ci ne damay bañ di lim di juum waaye bàyyiwuma kenn sëñ eh, Cheikh Abi mi jiite commission santé ak action sociale yaakaar naa bu ma juum damay bañ jum ci ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma mi nga xam ne lii lépp moo ko nu organisé ci moom itam positifam ak taxawaay ak dogam di gërëm suñu Cheikh Marème mi nga xam moo jiite commission organisation di jiite sëriñ di nuyu sëriñ Abo Mbakke mi nga xam ne moo jiite secrétariat général di lim bi nag moom moo tax ma ci bañ juum daanaka daal boo xam du suñu Ousmane rek moom mi nga xam ne moo jiite lépp ñëpp tàbbi na ci biir maa ngi leen beral sama cant ak sama gërëm ci liggéey bi nga xam ne nee ko suñ Basiiru Mbàkke Poroxaay mi waxee ndax dama ko wax léegi na ko yow da ngay da sa jotaay day soññee waaye juróom sëñ Moussa Bassirou sëñ Buxaari da ko daa seereel ne da ko de ak taalibeem ak wéet ku wéetli ñoo ci am ñoom nag dañ leen a tàggat ci loolu ba ko wàcce ngir wax ci màggal gi rek moom mi waajuram màggal Tuubaa agsi na jamono naqari déqee gi ñu ay toolam mu watt gerte gi dem jaay ko def ko ci màggal gi kon màggal gi moom mosuñ ci xaar kenn Sëñ Tuubaa da ko defar bu noppi sax màggal gi dafa jag lu jag lu sotti bu noppi la loo xam ne kon lu ci waaye dafa sant gërëm waaye liy jëmi màggal gi moom positif taalibe yi la taalibe yi defar seen kenn xaaru ci kenn waxuma ñun ñi sa waaye kenn ku ci ne sa kër séntuwoo ko ci kenn xaaroo ko ci kenn ndax loo xam ne budget biñ nattalee daaw wax nañ ne cinq millions huit cent dugg na ci dëkk bi ak ñi fi ne mooy juróom millions yu bëgg a tege daanaka juróom benn million te la yokk at mu jot kon loolu ñu ñu xayma li li fiy dugg ci koom-koom deux cent quarante milliards bu néewee ba néew xam ngeen ne kon ni ma leen wax bu fekkente ne bu ñu waxee ne la fi nguur di dugal mënu leen a gànnale ñoom kon xam ngeen màggal gi taalibe Sëriñ Tuubaa yoo koy def kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fas yéene eh, ànd koog yéen suñ Mamoor lim na lépp programme yeeg conférence yi ñu ci war def yi ci gën a fes nag mooy ñaar yi nga xam ne benn booy njabootu sëñ Moor Kuna Mbàkke ndax moom ku ne xam na lim doon ci sëñ bi ak pëstee fam xam naa ci moom du bari ndax jox xadaa il xaaji moo tax sëriñ bi taalif ko sëñ Aliou Diouf Lambaye ku ne xam na ab juddoom waaye dafa jaay lépp dafa jaay lépp jënd ko taalif bi loolu nag bu ngeen gisee ñu di ko def mooy xamle ñi ànd ak Sëñ mooy wane Sëñ Tuubaa te damay damay waxtaan ak ñu bari ñëw bokkal Sëñ Tuubaa ma ne leen képp ku bëgg Sëñ Tuubaa képp ku Sëñ Tuubaa defar na ngeen leen ko yéene ndax ñooy defaru sëñ bi te bu ngeen leen ko yéenewut te mun leen ko nangu da Sëñ Tuubaa ndax dañ ko ñaq liggéey ko Sëñ Tuubaa faye leen ko yéene leen ko nag bokk na ci gëm sëñ Tuubaa waaye ku leen ko yéene wut nag day mel ne sa gëm sëñ bi des na ndax sëñ Tuubaa kat bu fekkonte ne bu fekkonte ne gënaloon na ko bu fekkonte ne du jikko du jikkoom ji mu am kon af seex lu am kon ñëpp mën nañu aju ci njabootam mu jeex waaye kon kon du tudd yoon suñu sëriñ daa wax ne bu ñu wax yoon wi seex see tax kon sëñ Tuubaa ko njabootam dañuy wax kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan màggal gi ñu digg ceeg bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulillahi rabbil alamin tey ñaan nag jëpp bépp yëngatu buñ ci def yàlla ko Sëñ Tuubaa gërëm lépp lu ci bokkut wala gënalu ci Sëñ Tuubaa yàlla ko Sëñ Tuubaa dindi bam sedd wicc ba lépp di positif kese ndax kat Sëñ Tuubaa sëñ bi laa du fecc def saako te kenn mënu koo naxit kon yàlla na ñu dimbale ci am ci doomu aadama yàlla dimbali ba ñu ñu mucc ca ba lépp di pësifu kese ndax bu dee pësifu kese kat da yomb waaye nag bu ci àdduna duggee rek suñ bi génn kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waaw kon balaa sëñ bee ñaan rek ñu jottali daayira Muxaddamatul Xidma bi nekk ci jumaa ji ñoom it ci yëngu yi ñuy waajal maanaam conférence bu mag boo xam ne ñu ngi koy def ci la 11 safar ñu ci waxtaane yoonu murit téeméer at ginnaaw sëriñ bi sëñ bu Bousso Assane moo koy waxtaanee exposition bi ñu baaxoo def ci biir jumaa ji it dinañ ko def li dalee 15 safar ba le 19 safar incha allah wasalaamaaleykum loolu la ma it loolu la ma it bi loolu la ma julli it bi sëñ yaa ci war a taxaw man maa ko yoroon di ko def yow gis nga ma fanaan liggéey seen bagage yu bëri yooyu yëpp bu ma ko tuddee man ñaari benn man benn الحمد لله حق القدر الحمد لله